waaye ni ñu koy baaxu ji mooy jàng al aaya door a ñëw ci jéem ko firi ak jéem ko tekki audu billahi min ashaytaani rajim yaa ayyuhan naasu min dakarin wa unfa inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha caliimun xabiir sadaqa allahu al-caziim wa ballaga rasuuluhu al-kariim wa naxnu alaa maa qaala rabbunaa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 yal na la nangul leen seen koor nangul nu sunu koor yal na bind yi nekk lu nuy jëriñ fii ci àdduna jëriñ ñu bu ëllëgee noonu ko ñaanu xatmu quran di waxe noo ngi ci laaya fukk ak ñett ci suratu alxujuraat aya treize borom bi subhaanahu wa taala daane la ko inna akramakum indallahi atqaakum inna allaha alimun ki gën a tedd ci yéen fa fi man mu ne ki gën a tedd ci yéen fa yàlla ñu ne ko xam mu ne atqaakum mooy ki ëpp ci yéen ak ragal yàlla waaye ki ëpp ci yéen lu muy moytu yi ñuy tere tey boo ko dëppaleek suñum pénc li ma xamagum ci pénc yi sunum pénc ñoo ci gën a ñemee def lu ñuy tere ñun sunum pénc boo demee ci rond yi ñuy dawal wala nga dem ci feu yi ñuy dawal wala nga dem ci tëli boo mën a dem ñun yi nga xam ne kod bi da koy tere kod de la da koy tere sunum réew ko gën a ñemee def ñëpp waaye waaye atqaakum tekkiwul rek ne dañuy ragal yàlla baat bi dëgg la mooy ragal yàlla waaye ragal yàlla googul moo lay jural da ngay ragal lu ñuy tere nit daa war a ragal lu ñuy tere damaa xamut nag penc mi ñoo bàyyi li ñuy tere ne tereetuñ ko wala li ñuy tere moom dafa am ñoo xam ne tere tuñ tuñ leen ko waaye daal inna akramakum indallaahi atqaakum penc mu la gën a ba gën a ragal lu ñuy tere penc moom ay gën penc mi nga xam ne dafa ñeme lu ñuy tere waaw lu ñuy tere kenn waru koo ñeme tabarkàlla loolu mooy taqwa lu lay tekki imtisaalul awaamir awaamir du dara lu ay recommandation wala ay loi waaw wala ay ay ay interdit bu fekk nu nga koy waxee wala interdiction yu ñuy tere jubbanti leen penc mi loolu rek la famille boo gis la la pa la père de famille ba bu fekk nu leen ko waxee di tere te kër ga ñeme koo def te kenn du ci wax dara loola kenn tereetu ko ci kër ga ma waxati ko waaw jigéen ju am ay doomam te ñu mu leen tere dara góor gu am jabaram te ñu mu ko cere dara jëkkër ju am jabar te du moytu liy yàq sëy bi dara yooyu yëpp tabarkàlla lu méttee métti la tabarkàlla mbokk yi kon at taqwa sunu borom subhanahu wa moo nu ko wax démb ma doon tàmbalee lim yi nga xam ne moom la ñu jural bu nu bu nu ragalee yàlla waaw bu nu ragalee ter yi lum nu jural mooy sopp yàlla sopp benn yàlla yërëm ñu àdduna ak alaaxira ñaar yàlla dimbale nu te jàppale ñu ñett yàlla aar nu ba lépp lu ñuy ragal du agsi du fii du fële muy ñeent mu dugal ci sunu xol ak leer goo xam ne gii ci la ñuy xàmmee li am njariñ te di ca nekk xam lii lore ñu di ko moytu juróom mu may nu ñu am kàttanu fu nu jàkkaarloog seytaane duma ko waaw fu nu jàkkaarloog seytaane rek duma ko démb ci juróomeel bi lañ tolloon mooy yàlla dugal ak leer ci xolu ku ko ragal waj'al lakum nuuran tamshuuna bi wa yaxfir lakum wallahu gafurun yàlla ko wax ca suuratul Hadiid di aaya 28 waaw mu ne mu ne gëm leen yàlla te ragal ko te gëm yonentam bii ku ko ci def danga am ñaari bénéfice bu àdduna ak bu àllaaxira ca yërmandeem ji maanaam yërmandeem ji da nga ci tibb ba doyal kiif lay ni du ca yem mu defal la leer goo xam ne gi ca ngay dox di xam li am njariñ di di ca xëy di xam li lorati di ko moytu te loolu rek ay àdduna nag ba demee albiro waaye professeur Moussa Gaye ne ko nangam daf ma dal daanaka loolu lay wax rek moytu lekk yi jëfee liif lekk yi waaw si nutrition xam ngeen yéen a ngi koy dégloo <laughs> bintu seex Cheikh yal na yàlla yokk ko wér waaw yal na yàlla yokk ko xam naa ñi koy déglu tey jëfe ndigalam yeeg bàyyi teram yi moom <laughs> waxuma dara du leen jot de waaye yu baree bari du leen jot de ndax damay dégg muy wax ci wàllu lekk bu suur tabarkalla ak lekk te xiifoo te yonent bi waxoon na ne nahnu qawmun laa naakulu xata najuuca wala wa isa akalna laa nashba yonent bi nee na moom ñun ay nit lañ loolu lañ war a doon ñun jullit yi duñu lekk te su xiifunu mu ne nahnu nun kon dugal nañ ci ñun ñëpp ndeysaan duñu lekk te xiifunu ñu ne waaw mu ne bu ñu xiifee bay lekk bala ñoo suur bàyyi waaw moo tax feebar yu bari daal ko dal euh, soxna Bintu Cheikh Seck <laughs> kenn mësu koo gis rek waaye la ndaw kundaay yi bala ñu xiif lekk bu ñuy lekk bala ñu lekk rek ba regg wala ba suur kenn mësu koo gis mbokk yi kon juróomeel bi loolu la woon mooy yàlla ku ko ragal mu def ci sa xol ak leer leer goo xam ne gii moo lay guider moom leer gi guider gi ni mu lay guider nag mooy nga xàmmee li am njariñ ak li amul njariñ te xam li am njariñ ak li amul njariñ ak a baax di xëy ca la am njariñ waaw waaw waa dañuy dañuy tabaski xàmmeewut li am njëriñ ak li amul njëriñ waaw jamonoy ndeysaan eh, jamonoy suñu ministre bi yoroon wàllu woowu Aminata Mbengue Ndiaye élevage yal na yàlla yokk ko wér waa dem àllukaañ rek ramasser fa ay golo def ci def ci camion indi Dakar fi fi fi fi nit ñi yeew seeni xar di jaay mu yeew fa golo ya di jaay waaw te tabaski gi yaa weesu na te jaayul genn golo ndax nun duñ tabaskee golo <laughs> waaye dafa xàmmewutoon li am njëriñ ak li amul njëriñ lu tax ak ragal yàlla bu amul le xol bi am loolu yaatu la nag la lu yaatu nit daa war a xàmmee li am njëriñ ak li amul njëriñ te moytuy théorie di la théorie lu amul njëriñ ba nga jàpp ne am na njëriñ ndekete yoo amul njëriñ waaw waaw waaw kenn mësu koo gis rek ko defee yàlla mu ne wa yaxfir lakum mu suturaal leen wa huwa moom yàlla xafuur ku bëri sutura raxiim ku bëri yërmande la waaw defe naa yéen ngi koy déglu ci sunu wajur wa xaaj Ibrahima Sakho mu mu firil ñu xafuur firil ñu raxiim rahmatullahi alayhi wa radi anhu juróomeelu tàmb bi ci li ragal yàllay def ci nit mooy day may nit ki kàttan gumu mën a daane seytaan tuuti la abd xuwatan li galabati seytaan day day jox nit ki force force bu mën a daane seytaan loolu lay jox nit ki hmm? waaw te xam ngeen seytaane moom tabarkalla mi ngi ci mi ngi ci terrain bi mi ngi ci làmb ji seytaane mi ngi song nit ñi waaye ku am ak leer rek mucc ca nañ dem ci suratul aaraaf aaya vingt waaw su ma jumut wala ay deux cent vingt deux cent un su ma jumut waaw aoudu billahi min alsheytan arrajim inna alladina ittaqaw ida massahum taifum min alsheytani tadakkaru fa ida hum mubsiruun al araf yàlla nee na ñi nga xam ne dañ koo ragal bu leen seytaane duggeem rañaan wala kenn ci dongoom yi seytaane dugg leenum rañaan wala kenn ci dongoom yi taifum min a seytaan ndax seytaane ni nit ñi di ame ay taalibe am ay dongo am ay fans am ay nangami ki nangam am supporter seytaane loolu lépp daf koo am mu ne waaye ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla bu leen kenn ci dongay seytaan yu duggeem ña ñaan rek tazakkaru tazakkaru ragal yàlla ga def ci ñoom ñu fàttaliku ne ah ponkal mi dugg na ma fa iza hum mubsirun daal di gis daal di gis fu ñu war a jaaree combat bi pour génn ca xaj Mbàkke waaw tadakkaru fa ida hum mubsirun bu fi taqawaa nekkee tadakkur dafiy nekk bu fi tadakkur nekkee basira dafiy nekk bu fi basira nekkee xalabut cheytaan daal di fiy nekk waaye boo amul li doo am lee allahu akbar te combat bi nit di am ak cheytaane bu la seytaane daane yàq sa digganteeg sa jabar bu la daane yàq sa digganteeg say àndandoo bu la daane yàq sa digganteeg say waajur bu la daane yàq sa digganteeg sa kilifa bu la daane yàq sa digganteeg say mbokk seytaane léegi nag lu la lu la ciy génne ak taqwa moo la ciy génne ndax taqwa mooy tax nga mën a def tadakkur tadakkur mooy tax nga mën a am basira basira waaw tabarkalla basira moo lay may yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxta al akinnaati ca waxu xal bu kaaw yal na yàlla fayal nu ko mbokk yi ndekete ragal yàlla leneen la moo tax yàlla ne ku ko ëpp la ci yéen mooy ko gën a tedd inna akramakum indallahi maa ngi suratul xujuraat aya treize suratul araaf yàlla nee na ko am taqwa duma seytaane ku ko ñàkk nag seytaane duma la ndax boo amul taqwa doo am tadakkur boo amul tadakkur doo am basira boo amul basira doo xam fooy jaar seytaane juróom-ñaareel bi juróom-ñaareel bi ragal yàlla day yóbbu nit ci mu am pay gu rëy waaw ragal yàlla day yóbbu nit ci mu am pay gu rëy waaw ba demee ca talaaq ay cinq waaw tabarakal aoudu billahi min asheytan rajim dalika amru llahi anzalahu ilaykum wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra sadaqallahu al-azim ndeysaan dalika yàlla day wax ci suuratu talaaq yàlla day wax ci suuratu talaaq muy saar wi tudd fase saar woowu fase lañ ciy jàngale walla lenn ci pase yàlla di wax ci saar woowu jigéen ju ñu fase nu muy jàppe idda fu muy jàppe idda nu idda jay tollu hmm? waaw nu muy jàppe idda fu muy jàppe idda nu idda jay tollu tollu bu fekkee jànq la bu am bu gisagul baax ñu maye ko nu idda jay toll bu dee jeeg la bu gisatul baax ñu maye ko nu idda jay toll bu dee ku toll ci di gis baax ñu maye ko nu idda toll bu ëmb nu idda jay toll bu jëkkër ja faatoo nu idda jay toll allahu akbar yépp suñu borom def ko ay article ci saar boobu daane nag zalika lii ma wax nag waaw zalika lii ma wax nag ci waaw waaw daalika lii ma wax nag amrullahi mooy code de la famille bi leen yàlla indil daalika lii ma wax nii amrullahi mooy code de la famille bu yàlla bi mu leen indil moo tax bañ indilee sëriñ Cheikh Mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa rahimallahu bañ ko indilee code de la famille bii nu yor mu yër ko ñu ne ko signeel mu ne lii du Cheikh Mbacke ci teg ab signature am waaw tabarkalla du sëñ Cheikh Mbacke moo ciy teg ab signature ña ko ko indiloon ak ña ña ña yoroon yëf ya mere ko ca mu ne ndokk ndokk seen mere mi munta yàq sama programme mu àdduna munta yàq sama dara ndokk ñu ne ko soo jot bayee te gerte doo ko jënd mu ne <laughs> ma segal ko mbaa ma jaayi ko Maroc seet tit tit waaye lii moom du ma ko signé mukk ñu ne ko la tax mu ne zalika amru laa yee tax daal di bind jot nag pour bind waaw wa jaala ñu ne ko waaw mu ne wa kalimatullahi hiya tuddee téere ba wa kalimatullahi allahu akbar yàlla nu yàlla fayal sunu mag ñi waay xam naa ku ñu defal formation ti nitewoo bokkoo ci ñoom ñépp nag dañ defal formation en distance doo leen gis waaye li ngay dégg ñu di ko def rek tabarkàlla ala kulli xaal yàlla mu ne daalika lii ma wax nii nag ba ba muy jàngale fas ca talaax mu ne amrullahi mooy ndigalu yàlla mooy code de la famille bi leen yàlla indi ñu ne ah mu ne anzalahu ilaykum mu wàccee leen ko nag mu wàccee leen ko defar ci sëy yi wax ci yëpp jox ko jibril na ko yët ko muhammad mu jox leen ko mu jox na ko ba noppi ñu naan ko muhammad li baax na mais mm, mm. waaw nan dox <laughs> lii de baax na mais xam nga ñun lépp ñu ne ñu defee alxuraan téere barkeelu la waaw ko faatu wàcceel la kuy si ñu wàcceel la ku sa anniversaire u faatu dil si ñu wàcceelaat la ñun loolu lañ jàpp waaw ndekete yoo code bii nu yor nii muy code de la famille sunu borom nee na bii la indi moom daalika amrullahi anzalahu ilaykum moo leen ko wàcceel jox ko juróom-ñaar fukki junniy malaaka ñu ànd ak jibril indil ko alayhi salaam inna anzalnaahu fi laylatil allahu akbar wa ma adraka ma laylatul qadri ba laay ja ba saar wa jeex inna anzalnaahu wan mu ne zalika amrullahi anzalahu ilaykum lu ca tege wa man yattaqillaha ku ragal yàlla ba yore sa jabar ni code bi wax bu alxuraan bi bu fase jotee nga fasee noona bu fase jotee nga fasee noona bu ànd jotee nga àndee noona bu idda jotee nga idda woo noona bu tënji jotee nga tënji woo noona mu ne ku def lii yu kaffir anhu sayyi'aatihi loo ma defoon baal naa la ko ah allahu akbar loo ma defoon baal naa la ko waaw waaw wa man yattaqillah yu ku defee ni ma wax ci suurtu talaax wax ci suurtu nisaa yi muy talaax gu mag wala suurtu talaax di nisaa yi gu ndaw noonu la ko mag ñi daan fiiree ndeysaan waaw wa man yattaqillah luy xew yu kaffir anhu sayyi'atihi loo ma defoon baal naa la ko waaw tabarkalla ñoom Ablaye ñoom ñoom imaam Ablaye Mbay ca ñoo koy firee noonu ak firee mu neex moomu tabarkalla <laughs> ko yàlla yokk wér imaam Mbay yàlla nee na ku ko ragal loo ko defoon baal na la ko wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'aatihi looloo koy may nit nag ragal yàlla kon mooy lii la wax ci téere bi ci sa digganteeg sa soxna lii la wax ci téere bi sa digganteeg sa njaboot lii la wax ci téere bi sa digganteeg sa jëkkër doxalal loola ku doxal loola ragal nga yàlla ku ragal yàlla loo ko defoon baal na la ko wa yu'sim lahu ajra hmm? wa yu'sim lahu ajra waaw ma yokk sag pay ma ma jox la pay gu rëy wala ma rëyal sa pay ma rëyal sa pay waaw waaw ba dama ci Al Imran baamtu na ko ca wa in tuminu wa tattaqu falakum ajrun azim ca suratu Ali Imran aya 179 mbokk yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot maa ngi ci suratu al xujuraat maa ngi ci aaya treize inna akramakum indallahi atqaakum maa ngi ci at taqwa moomu nga xam ne moom la yàlla bëgg ñu récolter ko ci koor gi bu ñuy aj yóbbu ko maa ngi ci li li li li taqwa di jural ki ko def juróom ja ñaaral baagu juróom-ñetteel bi ragal yàlla tawsiu rizqi dana ko def wa fatxu mazidin min al ak ragal yàlla day day yokk wërsëg hmm? waaw waaw ak ragal yàlla day ubbi bunti xéwal gis nga dëkk bi xale yi dàq nelaw ci dëkk bi ñooy xëy di wuti liggéey mu leen ticc xale yi dàq nelaw ci dëkk bi ñooy xëy di wuti liggéey mu leen ticc jeeg ji dàq nelaw ci dëkk bi <laughs> mu ngoog daal ñooy bëgg seen njaboot am liggéey mëtalanti ci waaw dafa am waxtu yoo xam ne kum fekk ngay nelaw loo ñàkk loolaa la ko xañ dafa am waxtu yoo xam ne kum fekk ngay nelaw loo ñàkk loolaa la ko xam xañ waaw loo loo loo loo biddanti biddanti biddanti na la seen kër fekk yow loo biddanti biddanti waaye nit ñi ñeme nañoo yeewu neuf heures ñii ñeme nañoo yeewu huit dara mag ñaa ngi ci jàkk ji naan hayya ala salaa kaay leen julli si nu lànk hayya alal falaax kaay leen nu lànk waaw assalaatu xayru mina nawmi jullee gën nelaw di tee ngeen na ñëw nu lànk bëgg nag mun xëyee sunu borom defar suñuy affaire sunu borom ne du ko def du ko def waaw waa ji daa sëf ak gëléemam dàq dàq gëléem nga lànk mu dàq dàq gëléem nga tëral baat ba lànk mu ñëw ci yonent ba ne ko ah, man dama am goo xam ne gi mënuma ci dara yonent bi daal di sol aw ñu dem ñëw ci gëléem gi alayhi salaatu salaam gi waaw xanaa kii du sa borom mu ne ko ah kay ca seenu ca seenu làmmiñ ndax wa ullimnaa mantiqa tayri Suleymaan a ko waxoon yonent bi ne gëléem ko xanaa kii du sa borom mu ne ko ah dala du jox nga lekk mu ne ko ah kay dangaa naanul mu ne ko ah ne ko lu xew mu ne ko dafa lànkal kii boroomam ma lànkal ko moom mi sama borom yonent bi ne ko nga ne ne ko waaw dafa lànkal boroomam ma lànkal ko mooy sama borom kii nii taxaw nii mu ne ko xaa mu ne ko ñaari fan ni julliwul fajar waxuma laa suba yonent bi ne daal di gestuwaay ne ko xam nga lu sa gileem gi wax mu ne ko déedéet mu ne ko nee na dangaa lànkal sa borom mu lànkal la yow mi boroomam mu ne ko lu ma lànkale sama borom mu ne ko nee na ñaari fan ak ni julli fajar waajo ne këpp ne ko wax nga dëgg de mu ne ko jeex na yàllaa la bëggoon boppam rek nga nekkoon du wax dara moo tax yi yi ñuy lànkal di nu bañal ndekete suñu diggante ñoom la parce que àdduna si dafa nekk benn benn assemblée ñun élément lañ ci biir ñu bëgg ñu bëgg a la ñu bëgg a lànk te affaire yi di dox du dox du dox oto yaa ngi yor oto nii yë léegi amul ndox mais essence la am doo dem de am nga ndox mais amoo essence doo dem de waaw laaj ko moom Mamadou Sarr ma lay tabarkalla ca Cité Fadia doo dem oto bi assemble la lu ci pan ci yëf doo dem ma wax la ko tey yëppay ànd yi dox nga taal dem lu néew néew la oto mën a doxel sooxe ab paan te soox lañ wax léegi nag noonu nu bëgg nag àdduna moom dañ fi nekk nu nu neex nu def ko paan ba noppi ne ko doxal lu dox de ngeen baal ma ci toom bi waaye dëgg la yu baree bari loolu tax doxu sunu réew mii ci Afrique kenn ëpp nu fi ay milliards sunu réew mii ke mel réew ëpp nu ay oto mel réew dàq nu ay taax waaw waaye daal baax na ala ko li xaal ngeen baal ma ci temps bi mais c'est c'est un peu normal quoi <laughs> sunu borom nee na ci suratul Araf ci ci wàll woowu maanaam ragal yàlla day day day yaatal wërsëg di ubbi bunti xéewal waaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأغصناهم بما كانوا يكسبون wax jàngo sadaqallaahu al-aziim lii comme deux plus deux égale mel la mel yàlla def ne walaw anna ahlal qura walaw anna ahlal qura bu fekkoon ñuñ réew réew mu nekk bu fekkoon ñuñ dëkk dëkk bu nekk bu fekkoon ñooñ village village bu nekk walaw anna ahlal qura ahlal qura ñun ñi dëkkee Sénégal ñi dëkkee Mauritanie ñi dëkkee Gambie ñi dëkkee Côte d'Ivoire ahlal xuraa ndax yàlla daa moom suuf yëpp moo tax du wax ahlal bilaadi waaw ndax al bilaadu noo ko noo ko sàkk daggal Sénégal ne ko fii nga yem waaw colonialiste yi daggal Gambie ne ko fii nga yem daggal Mauritanie ne ko fii nga yem dagg-dagg yooyu nag du yàlla nu na moo tax yàlla du du nu fekk si di nu adopté naan wala walaw a walaw ànn ahlal madi bilaadi du wax loolu mukk ahlal xuraa lay wax rek nun ñépp lim dëkk xar ya la ko tuddee waaw allahu akbar waaw ndax duñ ko dagg ba noppi mu ne comme dagg ngeen ko naa wax ci fig déedéet noonu noo ko jéem a adopté waaye moom duñ adopté walaw ànn ahlal xuraa waaw amanu bu nu gëmoon walaw anna ahlul qura amanu bu nu gëmoon gis nga mbokk yi baatu law na law jooju fi dugg day tekki ne ndekete kon problème yi solution amagut problème yi ndekete solution amagut li tax solution amagut imaan amagut mu ne bu ñu amoon imaan wattaq wattaqaw da ragal yàlla bu ne def leen ñu def bu ne bàyyi leen ñu bàyyi la fatax naa alayhim barakaat waaw fi bu ñu toogoon ci euh, studio bi nii maag directeur Baye Umar Gueye oustaz Aline Mbaye maanaam ak oustaz yu ñuy réunion ñu toog mu tàng day joxe ndigal mooy lan oustaz Aline Mbaye jëlal commande boobu nga nga taal kilim bi waaw bu oustaz Aline Mbaye defee ndigal loolu jël commande bi taal kilim bi saal bi sedd waaye bu ne jëlal commande bi taal kilim bi saali mbay gàntu mu wax ko mbàkki si la mu gàntu mu wax ma ko ma gàntu mu wax ko Oustaz Momar Seck mu gàntu luy xew tàng jër rek di uppoo ko euh, nangam nangam àdduna noonu la yàlla nga ko tëral ci ay loi yoo xam ne buñ ca jaaree xéewal yu ubbeeku wërsëg yu mais buñ ci jaarut da waaru waaw ndekete kon solution yi mi ngi ci al imaanu wa taqwa yàlla loolu ñu defal yàlla loo ñu defal looloo jara laaj nag xaaj Mansour Mbay looloo jara laaj nag loolu defal mu na la fataxnaa alayhim dama leen di ubbil seetet la fataxnaa alayhim dama leen di ubbil loolu ñu ubbil barakaat <laughs> dama leen di ubbil loo ay am mu doy ndax ay barke lay doon waaw dama leen di ubbil barakaat mina samaai wal ard xew li jóge asamaan xew li jóge ci biir suuf lu waay def am lu waay def am su fekkee nit ñi gëmuñu nag la fataxnaa alayhim abwaaba kulli shay'in yàlla ubbi lépp bu ubbee lépp nag lu baax day ñëw safaan ñëw waaw moo tax bunt boobu daf koy tëjal ñi nga xam ne dañ koo gëm te ragal ko lu mu leen di ubbil bunt yii barakaatim mina sama barakaati min as-samaa wal ard xale yi am liggéey jigéen ñi ami jëkkër góor ñi ami jabar tabarkàlla euh, compte yi fees <laughs> koll yu fees maa la ko wax de barakaati min as-samaa wal ard gis nga fii kon li tax yëf yaatu wërsëg bu yaatu ñu dolli nuy xéewal lenn rek ñaar rekk la mooy ragal yàlla ginnaaw bi ñu ko gëmee mu ne walaakin waaye nag kazzabu nit ñi weddi nañu nit ñi weddi nañu ndeysaan gëm gi maasewul ragal yàlla gi maasewul waaw su fekkoon nag maase gi mooy eh, li ëpp ci nit ñi loolu lañ am su boobaa sunu borom fekkuñu ci su fekkee li ëpp ci nit ñu gëmuñu ko nag duñ ci fekk mu ne fa axasnaahum bi ma kaanu yaksibuun ma jàppe leen li ñuy def yàlla mu ne ma jàppe leen li ñuy def téye samay barakaat tëj bunti asamaan tëj bunti suuf ne ne acc gaa yi góorgóorlu ñëpp di sonnu ndeysaan mu tëx mu tëx a sotti waaw loolu benn la bu ñaaral bi tam boo demee ci talaaq ca aaya ñett aaya trois sunu borom ma ngi fay wax lu mel noonu waaw aoudu billahi min asheytaani rajim wa man yattaqi llaha yajcal lahu maxraja wa yarsuquhu min xaytu laa yaxtasib waaw waaw billaay sunu borom loo ma sa wax dëgg la nee na wa man yattaqi llaaha képp ko ragal yàlla luy ragal yàlla mooy jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem luy ragal yàlla mooy am jom ba doo nekk ci lu ñuy tere bañ la cee fekk ji la toroxal wa man yattaqillaaha ku ragal yàlla yaj'al lahu maxraja lu mu dugg suñu borom wutal ko solution waaw moo tax saxaaba ba dafa fase jabaram fase moo xam ne du fasem sunna fu mu dem rek mu ñëw ci ibnu abbas ne ko man de damaa fas sama jabar noo ko fase mu wax ko fase ma mu ne ko ñàkk nga ñàkk nga jabar mu ne man de alxuraan def ne ci suur talaax aya 3 wa man yattaqillaaha yaj'alhu maxraja lu tax man awma solution tey ibnu abbas ne ko seetal li jiitu rek mu ne ko lu jiitu mu ne wa man yattaqillaaha boo amul solution rek ñàkk ragal yàlla la ko xañ ci waaw boo amul solution rek ñàkk ragal yàlla la ko xañ ndek kon solution daa war a am nisaan wa yarsuquhu min xaysu laa yaxtasib mu wërsëgal la foo ko foogiwut mu wërsëgal la foo ko foogiwut moo tax politiciens yi message bu am solo ngi nii pour ñoom waaw moo xam ci locale yi nga nekk moo xam législative la moo xam présidentielle présidentielle la dee leen bàyyi xel laay ji ba baax a baax a baax yéen politiciens yi bu ngeen ñàkkatee walla ngeen am ngeen takk lépp jox ko sunu borom te di bàyyi xel laay ji wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja ku ma bàyyi xel mu wutal la solution allahu akbar ku ma bàyyi xel moo tëll la solution bu ngeen bëggee solution bàyyi leen ma xel allahu ngeen bëggee solution bàyyi leen ma ku ma bàyyi xel mu wutal solution mbokk yi maa ngi suratul xujuraat aya 13 inna akramakum indallaahi atqaakum mu dëgg ragal yàlla jéem nañu wax lal moo dëgg ragal yàlla noo ngi toll ci lan la ragal yàlla di julal ki ko ki ko am wax naa ci juróom-ñett juróom-ñeenteel bi ci li muy def tafrijul kurab wa taysirul umur ragal yàlla day dindi ay njàqare di yombali mbir ah mu ne waaw ragal yàlla day dindi ay njàqare di yombal ay mbir waaw nañ dem ci suuratu at bi ma jóge léegi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man yattaqi llaha yaj'al waaw ku ragal yàlla mu wutal la mu mu dindi la say njàqare waaw ku ragal yàlla mu dindi la say njàqare <coughs> yombal say mbir mm-hmm. yombal say mbir waaye waxaat na ci talaax ba tey wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra waaw waaw <laughs> yàlla nee na ku ko ragal sa mbir yépp ay yomb ku ko ñeme nag sa mbir yëpp jafe ah waaw waaw waaye boo demee ci sóoratu Layl aaya sept sóoratu <coughs> Layl aaya sept aoudu billahi min ashaytani rajim fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra mu jax yàlla nee na inna sha'yakum la shatta inna sha'yakum la shatta li ngeen di def mu ne mu ne bokkut dafa am ci yéen ko nay ba du joxe dara am ci yéen ko tabe ba lu mu am mu dem yàlla nee na ñaari ñi rek a fi nekk nag ah waaw waaw <laughs> wa ama man baxilaak fa a man ata yàlla nee na pénc mi ñaari ñi rekk fi nekk waa ju naya nay ba du joxe dara wala jigéen ju nay nay ba du joxee dara waaw nit ku nay ba du joxe dara kilifa gu nay ba du joxe dara lu mu am ci boppam lay yem ak koo xam ne ki lu mu am mu dem bokk ak ñëpp lépp nag daal di bàyyi fële kële tey fii wax ak ki nga xam ne lu mu am mu dem wala lu mu am bokk ki bokkam mooy fa amaaman képp koo xam ne aata yaa ngi joxe ci li nga am wattaqa teg cag ragal yàlla wa saddaqa bil xusna te te gëm ne lii muy def nii lu rafet la te lu rafet loola moo ko moo koy xaar ëllëg fa sanu yassiruhu lil yusra danaa ko yombalal lu yomb nga ne ko yàlla lu yomb mën a dugg aljanna kon nag ndekete ragal yàlla day yombali ragal yàlla day yombali mbir bu fukkeel bi ragal yàlla day jural nit ki an nasru ala al aada duma say noonu waaw ku ragal yàlla te say noonu wa raddi kaydihim wa najaatu min sharrihim ku ragal yàlla duma say noonu ku ñem yàlla say noonu duma la ba dama ci masaalik moom si tubaa nee na ya yaxafta min xawfikahu kullu ahad waaw nee na boo ragalee yàlla li yàlla sàkk lépp daf lay ragal waaye boo ñemee yàlla boo ñemee yàlla dangay ragal lépp mhm. kon ku ragal yàlla dootoo mun a ragal lépp parce que genn ragal yàllay joxe genn ragal boo ko ko ragalee ñeme ñëpp waaye boo ko ñemee ragal ñëpp hmm, allahu akbar am comme nit génn ragal la am pour pourquoi nga bëgg ragal nga ne dangaa bëgg ragal yàlla ragal sa kilifa ragal sa sa jabar <laughs> waaw ragal sa jabar hmm? eh, lu jug nga ragal ko ragal ko lañ jabar ragal ab xaj ragal aw nag rag rag moom léegi yow sëñ Cheikh nee na dangaa bëgg génn adduna te du jot nañ dem ci surtout Al Imran aya 120 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ndeysaan lii daal su ma ko mënoon a firi ay su ma ko mënoon a firi yàlla nee na in tamsaskum xasana tasuum su ngeen amee victoire ñu mer wa in tusibkum sayyi'a yafrahu biha su ngeen amee defet nu kontaan defe naa ni ñu doon ñu daan seetaan football barki démb bi Barcelone di football ak Liverpool seet <laughs> li ma bëgg wax xam ngeen ko am na ñoo xam ne defet bi tax na daanaka réeruñu ndax defet boobu moom moo su suwal bëtiku la nit ñi defe na moo am waaw laaj ko ñoom Pam Ngañ Jaañ ak gaa yooyu xam Pam Pam ku leen Jaañ laa bëgg a wax ah. waaw ca nekk ci RFM ñoom gaa yu kii yooyu <laughs> jàmbaar yooyu mbir maanaam nit dafa am ñoo xam ne sa défaite rek lañ bëgg waaye sa victoire rek lañ bañ wallaay ndeysaan mbokk yi darsi bi de jeexut teg leen seen baaraam foofu muy fukkeelu tomb bi ci liñ mën a amee ci ak ragal yàlla dañoo ak suñ ko war yëkkatee bëgg koo bàyyi sëñ Mbàkke si la jataay bi mu ñëw ñu jataay bii di xamtu tabaarakallaahu ñaanal ko borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te aar ko ci def ci poosam dara <laughs> jërë ngeen jëf ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di jaajëfal waaye di ci jiital lobb maam jaare mii tabarkalla waaw lobb moom ku ne xam na ko mooy matt mu ñu dajale di ko fàggoo nawet waaw tabarkalla lobb bi jërëjëf waaye yéen ñu koy jënd di ko jëfandikoo yéen itam jërëjëf <laughs> ki nekkoon ci xale bi ma di seen mbokk Adja Issa ngeen am nañ tafari seen mbokk Alioune Sall yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci sunuy poos dara wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu